na sa ba moo gën seen sëriñ di la dendaleeg ku ne faaw yi na araam yaaram du gam-gam loog sagan yemu leeni baay leeru cosaan gi xewoon ci mbàkke fayoo ko tey labbay gaa cam si la wusuul mooy saay-saay naway tasar xam summa xarbal mustara santul waraaya baw ko weerub leera aay xut boo gee gaa yi wusuul dañ laa xamul gi